commission économique et sociale bu dialogue national bi nekk ci ñeent su commission nag daal di nañu tàmbale seeni liggéey membre yi nag nar a waxtaane ci mbir yi nga xamante ne ni moo jukkee ci boobule domaine. commission boobu moo yore mbirum mbirum àddina si mbirum koom-koom bi mbirum liggéeykat yi mbirum àddina euh, bi li ñuy wax ndax cher na tey cherul loolu yëpp moo ngi ci biir commission bi. jóg si commission boobu am ñu ñuy wax acteur culturel yi ñi nga xam ne dañuy yëngu si affaire sport ñi nga xam ne dañuy yëngu si culture ñi aar lépp affaire religion moo ngi si biir membre commission bi nga xamante ne ni toll nañ ci lu toll presque cent ci ay nit yi nga xamante ne ni ci biir secteur boobee la ñuy yëngatu ñoom ñee nag dinañu waxtaan ci ay termes de référence yi nga xamante ne ni daanaka ñoom ñee ñëpp nangu nañ ko buñ ci noppee daal di def ay recommandations. li nga xam ne daal moom la ñu def mooy proposer ay recommandations yoo xam ne dañ ci daal di déggoo daal di gën a privilégier international ak tamit daal di impulser ab taux de croissance économique bu nga xam day baax ci askan wi ak emploi yi nga xam ne lu am njariñ la ak yi nga xam ne mooy wàllum progrès social ci loolu daal ca la ñuy xeltu commission économique et sociale am lu toll ci fukki fan ngir daal di pare liggéey bi ak recommandation yi nga xamante ne ni dañ koy daal di def ci ab document bu ñuy jagleel la njiitu réew mi